asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi di novembre 2020 ñoo ci yëglikaay suñu lamb la ñu xëy tey doore ku mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb moom tey fa mu xëy génn fenn la maanaam ki nga xam ne nag mooy njiit lu bees la ñu mu war a jiite li nga xam ne moo di lamb ji feek ñaari at muy Ibrahima Sène ñu gën koo xam ci tur bi turu Bira Sène nag mel ni ki nag fi mu nekk nii daal moom la mu xëy di wax daal lenn la ginnaaw bañ ko tabee nag ba installé ko démb daal nee na daal loxo mi tàllal na ko képp koo xam ne daal ci làmb nga bokk moo xam foo ci mën a féete daal biraa nee na ubbi na la ay buntam ngir nan nga fas yéene ñëw jàppale ko ci li nga xam ne moom lañ ko dénk muy mission bi nga xam ne moo yore làmb ji biraa daal nee na bàyyiwul ñëpp daal lay woo ci mbir mi nga xam ne moom la ñu ci wala boog moom lañ ko jox ngir mu fas yéene koo doxal mu jiite làmb ji mel ni ki nag jamono yooyu nga xam ne mu ngay woote moom ka ko fa teg muy mataar moom mu ngi koy wax lu leer nag ne ko fi mu nekk lay xel di bu baax a baax di la surveiller ngir nag mbir yi gën a mën a tegu ci aw yoon yemu ca tamit moom Matar Ba ne tam li am ba des daal continuité moom la nu soxla la amoon la ca baax ñu jël ko continuer ko la nga xam ne jaarul ci yoon ñu bàyyi ko ca suuf régler tamit li ay conflits yoo xam ne nii am na ci biir làmb ji ci yi ñu xam ne moom la ñu jëm Matar Ba ko tamit bëgg na ko ci moom maanaam daal ay coow yoo xam ne nii mu ngi doon am ci biir làmb ji nee na Bira Sène daal li am des daal mooy li ñu bëgg moom ci ay fan yu néew mbir yooyu nga régler ko ba teg ko fa nga xam ne nii foofu la war a tege ci aw yoon mel ni kii nag ca diggante yooyu nga xam ne nii am na ci ay nit ñoo xam ne bokkuñu gis-gis wala ñu daan ànd ba benn moment àndutuñu wala déggootuñu bokk nañ ay diggante yoo xam ne nii danañ démb daal réglé nañu ko muy ci ay conflits yoo xam ne doxoon na ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Pape Abdou Fall ci seen ba ci ki nga xam ne moom mooy Amadou mbay ak ka nga xam ne moom moo di du jaaj mel ni ki nag daal diggante yooyu tamit réglé nañ ko dem ci li nga xam ne ni daal mooy toog bu njëkk bu nga xam ne ni moom moo di biraseen yëg bi di suñu lamb ba moo xëy ñëw tey di nu wax lu mel ni ki noonu mel ni daal soo bëggee dégg dëgg moom bira moom démb teg nañ ko cam séesam ne ko nag doxalal mbir maa ngi noonu yaa ngi noonu yoon waa ngi noonu mel ni ki nag ka nga xam ne nii moom la ñu ci moom muy ki nga xam ne nii moom moo di may sa njaay moom yore wàllum làmbi dóor ja may sa nag moom la mu xam ne daal dana honneur bu mag a mag a mag daal la am fi mu nekk nii moom may sa njaay ma nga xam ne moo jiite làmba ja nga xam ne moo nekk ca Thiès Sidi Diakhaté di promoteur moom tamit daal mel ni ki nag moom jàpp na ne Matar daal maanaam nit la koo xam ne day nit la koo xam ne gis-gisam sori na lool lool moom loolu la gis Basiru Baabu tamit jiite manager tamit mu ngay wax jàpp daal fexe ba nga xam ne nii daal mbir mi dana gën a avancé jëm ca kanam loolu mooy gis-gisam Pape Aline mbay nekk ca waltu tamit moom wax na ca mbir ma jàpp na ne daal mbir mu ne am na bés bu muy xaar rek su bés ba jotee tey am yaawu jaal tamit wax na ne daal li am ba des daal mooy biraaseen na ko ñëpp jàppale ngir nag mu fas yéene yóbbu làmb ji fa nga xam ne mooy ca kanam Mbaye Diallo itam wax na lu mel noonu ne ne tamit li am ba daal ñoom ñi nga xam ne nag ñoo yor école de l'élevage yu mel ni ki noonu daal ñoom daal li ñu fas yéene def daal mooy ànd ak Bira liggéey lu leer nañ Hippo yi moom moom yore ab micro central xam ne ne lu bees daal amu fi bañ koy coow ne li fi nekkoon dong lan fi tegaat moom daal loolu la gis moom mi nga xam ne ni moom moo di Hippo Ngary jàpp na lu bees amu fi tey su suba waxe noppi loolu mooy wax yi li nga xam ne ni moom moo di ka nga xam ne moom moo di Hippo Ngary ñeneen ñoo xam ne ni moom boole seen bopp lañ doon wax muy waa écurie Fass ak waa Ndakaaru mel ni ki démb nag wax jooju génnul nag waaye ki nga xam ne nii daal moom moo di am lu kati jóbam jàpp ne loolu moom procès rek la waaye la ci di dégg daal wax jooju dèjà moom génn def na ko ba tey bu ñëwee ci wàllum visionnage boobu nag wala boog wàllum ànd boobu ci diggante écurie Fass ak écurie Dakar mel ni ki ba tey ca Leewtoo TV moom Saourou Fall may manaat sa yàgg loolu écurie Dakar moom jàpp ne ne jooju wax moom maanaam daal yëgu ko géntu ko te itam nag kenn waxu ko ci dara maanaam daal ànd googu nga xam ne ñu ngi koy ñurumtu ci diggante fas ak écurie Dakar Sawru daal xam ne na moom loola moom nañ ko ca keccat ndax nag yëgul géntu Pape Diop Boston moom di champion d'Afrique la mu xëy di xamle ca ca rubrique ba a marqué nga xam ne moom daal loolu la xëy tey di ko wax ci bi nga xam ne moo jiitoon làmbi Kaolack léegi nag mu jiite làmbi réew mi daa ba nga xam ne moom moo di Hakim Amar daal nekk candidat ngir fas ko nag remplace fa nga xam ne ni fa la toogoon daan doxal doon làmb ja fa nga xam ne nii moom moo doon moo doon fa nga xam ne moo doon ca kaw la loolu yëglikaay ba tey moo xëy ñëw dina ko wax ñeneen ñoo xam ne nii moom ay mbër lañu mel ni ki nag ñoom bu bëggee dégg dëgg daal daa mel ñoo nga fa ka nga xam ne moom mooy caat bu booy bambara moom yëglikaay xam nañu daal ca tuus moom mooy Brooklyn jet bu Pikine moom tamit moo nga xam fa nga xam ne nii moom moo di Atlanta yàgg maar nag may laaj maag yow kañ la ñuy dem Brooklyn ak Atlanta ndax loo ci mën a dégg moom États-Unis yaakaar naa bokkul ak Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñu ci Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di ziar leen jégalu bu a baax a baax nag ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax démb gisu ngeen bu baax a baax tey nag hmm, defe naa ne ñu ngi ci mardi tombeeg le 10 novembre 2020 ñu ñaan yàlla xam yàlla koo fekkee te di ko tal barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen nuyu bu baax a baax a baax di am ci yéen contentement waaw soppe yi rek nekk rek ku a nekk ñu la ñaan jàmm di ko ne que nag defe naa tey moom mbir mi wenn saax la rek waaw maanaam mooy mbirum ah CNC bi nga xam ne nii andi nañ fi njiit bu bees ak ki ko war a jiite muy Bira Sène mel ni nag ginnaaw ministère des sports alxames ji ñu génn ba mu leen dalalee maanaam équipe bi fi newoon muy Alioune Sarr ñu joxe leen ngay dem ñu jox ko ko nga xam ne moom mooy Bira Sène équipe bu bees mel ni ki nag démb ci altine ji la leen ministre des sports doon installé fa nga xam ne moo doon ca arène nationale mel ni ki nag xalu làmb yëpp yëpp yëpp teewal nañ fa moo xam reporter ya la moo xam bindkat yi bind ca làmb la moo xam ñay filma ca làmb ña nga xam ne ñoom ñooy manager ya promoteur yi maanaam képp ak supporter ak amateur maanaam amul woon ko des ndax lu lamb yëpp fa teewoon muy bés boo xam ne tamit ah bés bu ñu war di bu ñu nar la ci kanam incha allah ndax li ko waral mooy Alioune Sarr la ñu bëri doon laaj kañ lay dem kañ lay dem mu dem ba ñu jël te nit remplacé ko muy Ibrahima Sène bi Bira mel ni ki nag li am ba des mooy Alioune moom ci la ñuy njëkki ndax defe naa ne 26 ans nga jiite ko benn mbir di ko doxal defe naa loolu lu yàgg la nit judd na fi ba am fi ba sëy fi ba am fi njaboot am na fi ci diggante 94 ak tey mel ni kon lañ ko ñaan mooy gudd fan ak wér gu yaram mu noppaloo ak jàmm waaye di waxaat que ni rek am na lu mu def ci làmb lu baree baree bari loo xam ne nii wax dëgg yàlla satisfaire na mbër satisfaire na ko bokk ci làmb dafa fekk nag olof da koy faral di wax daanu dagil suuf te kenn mën tamatale lépp ndax bu ko neexoon bu maanaam bu loolu loolu bu neexoon suñu borom moo koy njëkk a def kon soo xëyee sa bopp ngay ma xëy na ci sama bopp ku ne dem ci kër kenn waaye nag yàlla moo doxalu noonu àddina moo tax ba nga xam ne nit mën tamatale lépp dangay ngay def lii bàyyi keneen ñëw def leneen kon Alioune Sarr ñu ngi koy wax mu dem ak jàmm ak équipe bi doon liggéey masha Allah liggéey bi rafet na bonte lépp mënta matale ki nga xam ne moom moo ñëw di Ibrahima Sène ñu naan ko Bira defe naa du gan ci làmb te nekkul tamit gan ci mouvement associatif defe naa ne tey boo ko toppee dem Saalum nawetaan ba yeneen ak yeneen yoo xam ne yëngatu na ci ba pare nekk jàngalekat defe naa jàngalekat kese boo ko nekkee rek loolu am na lu muy wane ci yow que ni war nga mën a jubbante nit teg ci aw yoon kon tey bu ministère des sports doyloo ko ak waa làmb jox moom Ibrahima Sène ah muy loo xam ne ñu ngi ko ci ñaan mu parce que dégg nañ ko ay waxam mu mu ngi tàllal ñëpp loxo pour ñu ñëw jàpp ci effectivement noonu la war a demee tey du yow la ñu rek dañ la war a seetaan non non dañ la war a jàppale encadré la di la dolli ay xel loolu moo tax ñu toftal ko vice président ak ay vice président yooyu pour que la pour équipe bi mën nekk équipe buy gañ kon nag ñu ngi ñaan yàlla équipe boobu nga nga xam ne tey li ñu doon xaar ci yenn yoo xam ne wàlla man ko doon jooytu mu mën ko satisfaire moom équipe mel ni ki nag am na ñu ci gis loo Dieye Sène ak Abdoulaye Ndiaye ak ku mel ni du janjeeg kook Amadou Mbaye ñoom ñëpp ñoo bokk lam ji ku ci ne marqué nga sa empreinte ci lam ci côté ba nga nekk mais dafa fekk ne ba ñëpp lam ñoo dëkk mais des ñu laalante laalante bu xaw a waaye nag xolof na na bu yoon jeexu suuf waa ko suñu jeex waaye dégg maanaam loolu mooy ah lu coowal am am am lu mënti xew rek ku ñu mujje mooy toog autour waxtaane ko mu rafet kon jubóo boobu ñu wane démb yàlla na doon dëgg ndax mu nekk dëgg rek mooy njariñ mais su nekkul dëgg tamit du am benn njariñ te dañuy am na lu fi amoon ci diggante Baboy ak Eumeu seen ay at ci ginnaaw ci lu CNG organisé mu ñëw joxante ko loxo mais par la suite ku ne gis na ne amul si parce que xëy na lañ doon def damay jàppoon ne ñoom ku ci ne da ko desoon a gëm kon nag ñii muy Pape Abdou Fall kilifa la tey ci réew mi jéy seen xale la mais kilifa la parce que ay nit la dirigé yore leen Abdoulaye Ndiaye kazalika noonu du jàjjee ko waxaale wuñ ko Amadou Mbaye noonu kon ñun ñëpp ay kilifa ku ci nekk domaine ba nga ne kon ñu leen di ñaan rek loolu ñu war a démb yan nañ ko dëggal ànd bokk nday bokk baay ndax nag jàmm moo gënu ay yaa ngi dégg ay nit bu ñu bokkee mbir di ñu ko xajoo nañ fexee ànd bokk nday bokk bàyyi donte nag waxante dëgg du ñàkk loolu moom fii lañ ko fekk ndax mooy tax mbir yi dox faw ñuy waxante dëgg di xoolante ci biir bët yàgg baat di waxante li mën a ak li doxal mbir ñoo bokk lam yëpp ñoo bokk muy loo xam ne daal lu rafet la mais li am ba solo daal ba des mooy ah dëgg yàlla ànd boobu moom su mënee ne dana gën lool lool lool lool lool lool lool parce que itam ñoom ñëpp ku ni ni rafete woon ñuy ànd jéey Pape Abdou Fall Abdou Fall bu ma waxee jéey sama doom la Abdoulaye Ndiaye muy koo xam ne ku active la moom tamit muy ay nit yoo xam ne daal pour man ñoom ñëpp réeru la rek mais ñoom ñëpp ay nit yu baax la kon di ñaan jàmm diggante yi ak yeneen diggante li ci des mooy visionnage la ñu gis démb ak tey ci écurie Fass ak Ndakaaru mais léegi a dafa gi ma ko waxoon Amadou Kat Diop jàpp na ne loolu procès la Sawru Fall moom bu ñu demee ci Leewtoo TV moom xam na ne loolu yëgu ko Sawru Fall nag ku xamee écurie Ndakaaru xam ko écurie Ndakaaru def naa bañ ko sosee ba tey bu ma bu dul bañ ko sosee waaye xam naa bokk na ci ña fa jëkk comme ay menaces wala bokk bokk na ci ña fa jëkk comme ki nga xam ne moo doon ndoy yaakaar na Sawru yor na fa mbër yu bare bare bare ba tey defe naa mu ngi ci écurie moom nag bu ne yëgu ko loolu dina looy tooy waar defe naa nag écurie Fass Ndakaaru tey am na def lu ànd bokk ci ànd ak écurie def ko benn écurie am lu ko di jóg di coach tam war na ca mën am ay nouvelle waaye xëy na nag lépp xëy na bu dee lu ko waxtaane ko ñoom ñi daal olof nag nenañ lëngoon neex na loolu waaye koo bàyyi mu dama ki baggam loolu olof Njaay koy nañ ko def te ànd sax moo gën ndax lu mën a xew ànd moom moo gën ndax yàlla wax ci alxuraan wax daje mu ko billahi jamiin maanaam dañu ànd ci dugub yàlla gi loolu dafa am solo kon mbooloo mën a la rek ànd songu dara dafay neex dafay am solo waaye di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp jam di bal ñëpp ak di wax euh, happy birthday to you Aji ak ah happy birthday to you waaw waaw Wakaam la ñu di ay copain man Mansour bi nekk fi nga xam ne Mansour Fall bi nekk fii dëkk Baobab kon aji ak baaba daal happy birthday to you le 10 novembre yàlla na ngeen ko yàgg a feete barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit yàgg maar di wax benn dëkk boo xam ne mu nga ci région de Louga ñu koy wax Calom Fall dafa am sama benn soxna bu fa ne ñu koy wax Àll Fall dana mën naa naa sànni kàddu parce que ci xale yu jël gaal bi parce que ña fa dee fan yi daa bëri ca dëkk bi ah ñu di leen wax rek kani ñun ah dafa metti ay na réew mi metti na waaye nag dama est-ce que loolu lay la ba war a tax ñuy daali suñu bakkan man jàppuma loolu yaa ngi dégg xëy na loo gis lu ne ak ah, bu méttee mën na mujjee bànneex nañu jàpp rek ñàkkante xëy na yàlla mën nañu woon bunti waaye wax dëgg yàlla daal man de du ma encouragé kenn ci ngay suub sa bopp ci géej ba sa bakkan di ca des muy waa Corom Fala waa fu mu mën a doon ci réew ndax fan yi wax dëgg yàlla bëri na fu ñuy fekk ay ay dëj yoo xam ne la ko waral mooy gaal gi kon defe naa ne xale yi nañu gën a amaat conscience gën a fexe def rek suñu dëkk waaye suñu autorité tamit nañu jéem a jàppale jàppale suñu jeunesse pour mën leen a pousser mën leen jox ay liggéey encouragé leen mécanicien bi ñu jàppale ko ca mécanique ba menuisier bi ñu fexe la muy liggéey mu di ko mën di jaay ci réew mi tailleur bi noonu keneen noonu cordonnier ba noonu su ko defee géej gi tamit ñu fexe liñ ci moom ñu ñu jox ñu ko suñu yàppkat di ko noonu su ko defee loolu dina tax xëy na jeunes yi gën a mën a am dal ci seen réew gën a yaakaar seen réew nga xam ne kenn dugg ci ay gaal ba yaay sa bopp ndax dama yaakaar ne ku ku sañul doo gis lu lay rey nga dem mais nag doy na war daal yàgg maar bi ñaan jàmm Sénégal wax yàlla na yàlla defal jàmm barke sallallahu alayhi